Thank you.

sa kàddu démb na nekk sa jëf tey am na xaaral boo xam maanaam bu baax bu kenn fàtte Macky Sall ci boppam ak ñi mu yónni ñoom ñoo ubbi bâtiment bi 3 avril xaw ma 5 avril waaw léegi di def ñeenti at nga ne li nga di ko o fañ fañ fii ba pare di woyal bugaan di ko tàccu bun joon anam ñoo ñëpp tey ñu dañuy tëj fii kon nag kenn rus kenn daw Sénégal yëpp laa wax de Monseigneur Benjamin Ndiaye nee na homme politique yi ñoom ñoo a Sénégal mi ngi ci à la une des journaux sëñ Mountakha kazalika sëñ Mbaye Sy Mansour kon dañu góorgóorlu boo demee léegi ñu suy le roi du suy kazalika li Baye léegi kon nanu defaraat ko Sénégal waaye bugaan kenn du ko laal travailleur yi kenn du leen laal ndaxte dem nañ ba moom suñu bopp gëm suñu bopp kon nag bugaan ñun niñ koy wooyee université mooy alxamisali amisali